wa mawlaana abil qaasim al mustafa muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بالسهر maa wali imaam al mahdi min ali muhammad alayhi salaam labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn salawat ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim والصلاة والسلام على على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وهما صلى على محمد وآل وعلى آله طيبين الطاهرين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل حسين وعلى من ظلم حسين من الآن إلى يوم الدين اللهم أن أول ظالم ظلم محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم إصابة التي جاءت الحسين والشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم لهم جميعا mbokk jullit yi ci bis yi ñaar di fukki fan yi jiitu ci weeru muharram di weeru ashura di weeru tamxarit ñu ngi leen di yeesal sunu njaal ci aba abdullahi al useyn alayhi salaam useynu sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ñu boomoon ak njabootam ca Karbala di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla rëbb rëbb bu dul jeex mukk ña rey Useyn te yàlla nañu yàlla boole ci yi nga xamante ne ñoo koy fayul ànd ak sëtam bii nga xamante ne mooy sunu yaakaar di imaamul mahdi ajalallahu taala farajo sharif yàlla na yàlla gaawal feeñam te boole ñoog moom fi dunya wal ñu ngi jël sunu njaal di ko teg ci loxo Mawlaana Chérif Mouhamed Ali Aydara di ko jaale maamam Hussein alayhi salaam di ñaan yàlla bu bàyyi ko sunu kanam ba keroog mu teg ñu ci loxo imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu Chérif tey jii nag mbokk yi mooy ñaareelu fan ci weeru tamxarit ñaareelu fan ci weeru tamxarit mooy correspondre ci bis bi nga xamante ne Mawlaana abi abdallah imam Hussein alayhi salaam fala eggoon ca Karbala démb bu ngeen dégloo nijaay Ousseynou retracé na leen li waral Karbala su doon kuuru histoire dañuy wax ne retracé na les causes lointaines maanaam li ko indi ca la jiitu retracé na aussi la cause immédiate maanaam li ko indi ca saasi ba wax na imaam Ousseyn alayhi salaam jógee Makka jógee Médine dëkku maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jóge boo xamante ne c'est un voyage sans retour. maanaam dafa dafa doon dem te dootul dellu si mukk te la demoon ca xabru maamam ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daat koy tàggu daal di ñaan yàlla subhanahu wa taala ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ci sa màggaay ak ci barke sama maam mii nga xamante ne moo nekk ci xar xabru bi lii des sama àddina lépp daal bu ma ci def lenn lu dul li nga xam ne moom nga gërëm maa ngi dem nag defi li nga xamante ne moom nga gërëm te moom nga namm ci man ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la ko feeñoo na ko Ousseynou demal ndax fi mu nekk nii am na martaba boo xamante ne yow yaaka moom mu nga ca yàlla waaye bala nga caa jot rek il faut que nga joxe sa bakkan ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ci la imaam Ousseyn alayhi salaam dénkaane dénkaane yi mu dénkaane dem màkka comme ni ko Ousseynou nettali woon jóge fa nag ci bisu Arafat ba jubal di dem ca Karbala ba muy dem ca Karbala ca yoon wa la dajeel ak alhóor ibnu yazid ar-riyaa'i jàpp leen tur boobu baax alhóor alhóor moom mooy gor ibnu yazid ar-riyaa'i doomu yazid ar-riyaa'i mu nekkoon général ci armée wu ubaydallah ibnu ziyad ubaydallah ibnu ziyad mooy gouverneur ba nekkoon kuufa ca iraq moom la yazid joxoon ndigal nen na rey imam Hussein kooku moom mooy ki nga xam ne moo planifié moom lépp lu xaw ca Karbala moom moo ko planifié moo ko jiite alxóor ibnu yazid al riyaahi moom la ubaydullah ibnu ziyaad yónni woon jox ko mission mission mooy lan mu ne ko demal kari ima Useyn fexeel ba bu mu egsi bu mu egsi fii Kuufa bu mu fi egsi léegi nag na nga ko kar bu mu egsi amma mu nangu ne yazid laanatullahi alayhi moom mooy xalifa jullit yi daal koy nangu ne moom mooy xalifaam daal di jaayante moom su nangu loolu nga rey ko ak ñamu àndal waaye fexeel ba bu mu egsi fii te yoon wa la imaam Hussein alayhi salaam dajeeg alxur ibnu yazid ar riyaahi bi mu dajeeg ñoom nag ak ay soldaaram ci la imaam dajeeg alxur ibnu yazid ar riyaahi ñu ne ñii ne dafa àndoon ak junni soldaar ñii ne mu ngi àndoon ak ñetti junniy soldaar trois mille soldaar bi ñu dajeeg ñoom nag fekk na ñoom xiif nañu mar nañu seen fas yi sonn nañu bi ñëwee ba dajeeg imaam Hussein fekk na imaam Hussein alayhi salaam jamono jooju mu ngi àndoon ak ña mu àndaloon jóge Makka ñu mu àndaloon jóge Makka nekkoon ñeenti téeméer ñeenti junni nit quatre mille personnes yoo xamante ne bu mu defee discours am ya wax leen na moom mooy sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa jóg pour digle lu baax ndax jamono jooju ak mbon feesoon na ci biir ci biir dëkku jullit yi feesoon na ci biir monde islamique bi ba nga xamante ne kenn xàmmeetul lu baax ak lu bon waaleykum salaam wa rahmatullah damay digle lu baax tere lu bon daal di dekkil sama diine maam ak sama diine ak yonent sama diine maam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sama diine baay Ali ibn Abi Talib alayhim salaam lan la doon expliqué doomu aadama leen won ne diine jii ñu tuddee lislaam bokkut ak diine ji nga xam ne moom la fi maamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ndax ba mu génnee àddina la mu dénkaane woon yëpp dañ koo teg ci suuf bañ koy ba mu faatoo laata ñu koo denc li mu dénkaane woon lépp tegg nañ ko la ca jiitu te moom mooy ndey ja mooy tegg nañu ñi nga xamante ne moom ñoom la yàlla faloon pour ñu jiite jullit ñi moom mooy waa ahlul bayt wa wasalaamu alayhim mooy njabootam tegg nañu imaam ali alayhi salaam tegg nañu fatimatu zahra salaam teggi nañu Assane ak Ousseynou ñi nga xam ne ñoom la leen dénkoon te ku ci nekk non seulement teggi nañ la sa place bi nga xam ne yaa leen waroon a jiite waaye fexe nañu ba doo mën a sax jàngale diina ji ni ko seen baay wala seen maam doon jàngale loolu moo waral xalif bu njëkk bi di Aboubacar bi mu ñëwee soppi na ci diina ji li ko neex Omar ibnu Xataab bi mu ñëwee moom moo gën a commencé li mu njëkk a def moom mooy tere tere ku bind addis daal di jël addis ñu bindoon yëpp mu dajale ko daal koy lakk ne lim euh, maanaam lim ci joxoon lay neen dafay ba ñu jaxasee addis yeeg alxuraan te addis yi mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu moom mooy firi alxuraan ndax alxuraan mooy téere bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy téere bi wax te téere bi suñ ko firiwul kenn du ko mën a jariñoo ci la commencé li yàlla li yàlla santaane woon yonent bi doon ko jëfe mu soppi ko yenn rek lañ ci njëkk a mooy li mu njëkk soppi mooy jàpp bokk na ci yàlla dafa wax ci alxuraan su ngeen jàpp yaa ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm su ngeen di jàpp iza qumtum ila salaat su ngeen jógee di julli faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq na ngeen raxas seen kanam ak seeni loxo ca cooncoya wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayni ngeen masa seen bopp lenn ci seen bopp ak seeni tànk ba ca fa tànk ba di di banko Omar ci jamonoom ñu commencé changer ñii di raxas tànk dootuñu ko masaa ñii di raxas bopp dootuñu ko massa ba loolu continuer bañ sax ci lañ commencé au lieu que ñuy masaa ci tànk ñu ne massa sol ay kawas masaa ci kawam dagan na foofu la tàmbalee ci julli fa lañu tàmbalee di julli di jël loxo di teg ci dënn loolu mooy xabdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan julli danaan allahu akbar bàyyi loxo yi mu daal di wàcc comme fa ko yàlla santaane comme comme ni yàlla bindee doomu aadama nga xam ne loxo yi day lang noonu la daan def Umar ibn Khattab moom moo fu dugal ci biir lislaam di julli di jël say loxo di ko teg sa dënn ndax dafa amoon délégation bu jóge woon Perse Iran jamono jooju ay maajoos lañu ñu ñëw fekk ko mu toog ñu daal di jël seen loxo teg seen dënn comme nii ma ko defee nii teg si dënn ba pare courbé def courbette mu ne leen li ngeen def lu tax ñu ne ko ñun de suñuy kilifa noonu lañ leen di nuyoo noonu lañ leen di màggale mu ne li ngeen def rafet na comme bis ni koy bis ni ko tey yéen jullit yi comme yàlla mooy suñu kilifa bi gën a mag su ngeen di julleeti te julli mooy màggal ko dee jël seen loxo yi di ko teg seen dënd jël loxo ndejoor bi teg ko ci kaw loxo càmmoñ bi loolu moo indi julli xaddu foofu la jógee noonu la def ngir yi di continuer ñu soppi julli soppi koor fa yàlla waxoon ne su ngeen di war su ma ati mu siyaama ilal layli na ngeen matal koor gi ba guddi ñu commencé naan léegi dee leen naaje xëdd tey teel a dog surtout que loolu ci jamono Muawiya doom papa Yezid ci lañ ko nag def nag mu nekk euh, obligation ci lañ ko def mu nekk farata ne léegi dee leen naaje xëdd tey teel dog moo tax nit ñëpp ñu ci bari dañuy dog te fekk dog jotagul seen koor gi yàqu ndax da mataluñ koo ba guddi ci lañu ci la Umar tam taxaw ne aj de ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafee woon tere naa ko ndax yonent bi aj bi mu defoon mooy aju tamattu aju tamattu mooy yonent bi dane woon képp koo xam ne dëkkoo màkka nga dëkk fi nga dëkk fi nga dëkk sore naag màkka quatre-vingt-trois kilomètres sooy aj da def aju tamattu mooy da ngay boole umra ak aj maanaam dangay ngay njëkk a ñëw umra soo umra ba pare nga daal di simmiwaat sa armal xaar bisu arafaat nga armalaat eggale sa ñetti fan wala sa ñeenti fanu aj noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dofe loolu mooy aju tamato Omar bi mu nekkee xalifa daal di taxaw ci minbar ne ñetti yii daan nañ ko def waaye man tere naa ko Omar képp ku ko defati rek dinaa la mbugal mu ne tere na aju tamato ba pare ne tere na tam muta moom mooy mariage temporaire nga xamante ne yàlla dafa waxoon ne sëy ñaari façon la ci suratu nisaa yi sëy boo xamante ne suñ xasee ba takk amul app ak sëy boo xamante ne laata ñu koo takk dañuy wax app bi ñaata la Umar ne boobu tamit tere naa ko ndax yonente bi nee na woon loolu moo war moo mën a dindi njaaloo ci kaw suuf moom moo dindi mën a dindi njaaloo ci kaw suuf ndax yàlla su teree njaaloo day joxe nit day jox nit ñi ay outils ay moyen yoo xamante ne du njaaloo te li tuddee mariage permanent maanaam sëy boo xamante ne moom la ñu miin bu amul àpp ñëpp mënuñu koo def ñëpp tam ñu koo def ci temps bu nekk moo tax mu indi woon boobu ne ki mënta def bii nanga nga def bii mais bu leen njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ñu koy appliqué ba njaaloo demoon na ba jeex sax ci monde islamique presque Omar daal ñëw ne loolu tamit tere naa ko la ci gën a graaw tamit mu ñëw ne léegi tamit noddu dindi naa ci hayya ala xayril amal ak liqaam ndax dañ ne allahu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammada rasulullah ashhadu anna muhammada rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah hayya ala khayril amal hayya ala khayril amal qad qamat salah qad qamat salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah noonu lañ doon li xaame nodd tam hayya ala xayril amal daf cee amoon hayya ala xayril amal mooy ñëw leen ci jëf bi nga xamante ne moo gën a baax ci jëf yi Omar ne dind naa ko li tax mu dind ko yonent bi génnee àdduna dafa commencé moom dem di songu ay nit di leen force pour ñu dugg ci islam loolu loolu français di wax guerre de conquête maanaam di forcer nit ñi ci dugg ci islam alors que yàlla waxoon na ci islam ci alxuraan laa ikra fi diin kenn du forcer kenn mu dugg ci l'islam te yonent bi tam musta xeex kenn xeex boo xam ne moom moo la song mooy guerre offensive mais dana guerre daal jihad daal dañ koo war a def rek pour défendre sa bopp bi bi muy commencé indi loolu ne ñoom ñu ànd ci guerre yooyu ñu laaj la moo tax ñu ne ñu ngi def li gën parce que ñu ngi def li julli ndax yàlla moom yonent bi doon ci ci nodd nee na hayya ala xayril amal bi mu leen jéemee convaincre loolu doxul mu ne kon loolu nañ ko dind ci nodd bi ci la ñu dinde ci nodd hayya ala xayril amal ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu tax ngeen dégg imaam Ousseyne ni damaa jóg pour delloo si diine bi comme ni ko sama maam rasulullah indi woon ne tam damay digle baax tere lu bon ndax Muawiya laanatullahi alayhi bi mu demee ba def coup d'état ba jël xilaafa gi ci la lépp lu yées nag commencé am ci biir géej gi moom da doon sàngara ci la commencé naan ci la commencé xalif bi ci boppam suy naan sàngara maa ngi ci des ci la commencé di am ay xarem xarem moom mooy di am ay junniy junni jabar fu mu déggoon ne jigéen wala mu dégg ne am na jigéen bu rafet bu fa nekk rek te mu neex xorom danaan indil leen ma ko sama pale bi sama jabar la loolu sax moo indi li ngeen di dégg ñu ne yenn naar yi dañ leen di tàpp Muaw Muawiya moo njëkk indi loolu ci biir islam moo njëkk jëkk jël ay góor di leen tàpp pour ñu koy gardeel ay jabaram ndax soldaar yi mu doon jëkk jox ñu gardé ci jabar nga xam ne seen góor dafa mat dafa daf dafa doon seetlu ne ñoom tamit heure bu fa nekk rek ñoom seen wàll ci jabar yi mu nañ leen di tàpp loolu mooy loolu français du de eunuque moom moo ko indi ak yu baree baree baree baree baree bare bokk na ci tey jii su ngeen seetloo jàkka yi dina am ay benn néeg bu ñuy def ci booru booru fi ilimaan bi du duggee bu nekk dafa war a poser question lan la néeg di def ci biir jàkk biñ ko laajee yéen nit ñi ne ah xanaa néeg boobu rek ci la ilimaan di waajal su ñëwee fa lay waajal laata moo ñëw ci jàkka yi ñu leen déedéet loolu koy jaru ko ndax ilimaan ci biir jàkk am na loo xam ne ilimaan kese moo ko moom loolu lañ tuddee ci kanam fu muy toog di julli foofu kay mun na fa jëw jubal directement lan moo indi loolu mooy Muawiya moom moo tabaxoon moo njëkk a tabax néeg yooyu ci wetu jàkkaam ndax foofu la doon entre jigéen yi foofu la doon entre jigéen yi di def ak ñoom lu leen neex su il su su su noddkat bi noddee ne allahu akbar noonu lay jógee du sangu farata sax dem jiitewaat ba pare delluwaat foofu kon lu baree bari loolu moo yàqu ci lislaam jikko yi yàqu musiba bi bari ba kenn xamewul lu baax kenn xamewul lu bon imaam Hussein alayhi salaam nag looloo ko taxoon a jóg mu ne damay digle lu baax tere lu bon daal di dekkal sama diine maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam labbayka yaa Hussein boog mbokk yi noonu la ñu dellu siwaat imaam Hussein bi mu dajeeg alxur ibnu yazid ar riyaahi ne ko yow dangaa ñëw mu nuyu ko ne ko ya yaa aba abdullah yabna rasulillah imaam Hussein koy daat koy tontu na ko yéen de xam naa ne sonn ngeen wàcc leen seen fas yi da ngeen a mar fas yi mar ah nañ mu ne seenu ne ñi mu àndaloon nañ leen may ndox mu laaj alxur ibnu yazid na ko yow lan lan yan tànk la tax a jóg dangaa ñëw pour nekk sama mbokk tu es venu en ami ou bien en mi wala dangaa ñëw nekk sama noon mu ne ko ah yaa aba abdillah yow mi sang bi doomu rasulullah man de damaa ñëw nekk sa nonte tey jii ndax ci ndigalu ubaydallah ibnu ziyad laa ñëw te ndigal gii la ma jox mu ne na nga jaayante ak yazid wala bu ma la bàyyi nga egg kuufa ci la ko imaam Hussein waxaat la mu waxoon li jaa usul nekk li woon de mu ne ku mel ni man du jaayanteek mukk ku mel ni yazid man maay doomu Fatima maay doomu rasulillahi maay doomu Imam Ali moom mooy doomu kan mooy doomu Hind bi nga xam ne mooy yoon resu Hamza mooy doomu Abu Sufyaan bi nga xamante ne moom moo xeex l'islam vingt-trois ans nekk ne l'islam du fi taxaw bañ demee ba xam ne loolu du sotti mu ne ay mbokkam yëpp nuñ duggandoo ci biir l'islam yàq l'islam bi ci biir mu ne ko man maay doomu rasulullah man maay doomu Imam Ali sama baay mooy Imam Ali baayam mooy Muawiya kon ku mel ni man du nangu mukk di jaayanteeg ku mel ni moom waaye mbokk yi su ngeen gisee ni alxur def di ngeen xamante ne doomu aadama rek moom moo doy waar ndax gis nga ni mu nuyoo imam Ousseyn ak teraanga bi mu ko jox xamoon na ne imam Ousseyn moom moo nekk dëgg mais comme que moom armée général la woon ci armée bële da doon obéir rek ay ordre ndax mbiru àddina foofu nag la ne ko daal ah comme que noonu la daal dem il faut que li ma sama chef yi wax ma daal koy appliquer pour moom ci xelam Ubaydullah ibnu Ziyad xalaatul ne dinañ dem ba rey Imam Hussein dañ dem trouver benn solution trouver négociation bàyyi ko mu dem wala bàyyi ko mu wàññeeku waaye daal xalaatul woon ne dinañ rey waa kër Rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax après dinañ ci dellu moo tax Al-Hur ibnu Yazid ar-Riyahi bisu Karbala ca suba ga bi mu demee ba xam ne xeex rek moo fi des ci la jël décision boo xamante ne doomu aadama bu nekk tey jii loolu loolu la war a jël loolu bokk na ci li ñu war a jàng ci ci la war a jàng ci li xew Karbala bi Ubaydullah ibnu Ziyad décidé na ne dañu attaqué imam Hussein dañuy rey waa kër Rasulullah ba mu làkk mu ne ko loolu la ñu def dañoo gis alxur ibnu Yazid ar-Riyahi muy jaabante ci biir tànt bi mu nekkoon ci xayma bi su demee ba ca ba ca buubii demaat ba ca boobee benn waaye daal kay xool ne ko de suñu ma doon wax naan ci araab yi kan moo ci gën a ñeme dama naan la yow la sama général mais tey ji gis naa ne tiit nga ndax da ragal jàmmaarloo suba ak doomu imam Ali doomu imam Ali ñëpp ñëpp ñëpp ndax ñëpp xam seenu njàmbaar ñëpp a xam imam ali ibn abi talib sama turandoo naka la nekkoon jàmbaar te loolu doomam lañ koo doon moo tax xam naa dangaa tiit alxur ne ko déedéet tiituma ndax fu mu nekk soo gisee may jaabante damay natt sama bopp inni uxayiru nafsi baynal jannati wa naar damay natt bopp diggante àjjana ak safara ndax tey jii su ma bokkee ci ñi rey imam Ousseyn dinaa am ci àddina li ma bëgg lépp dinaa bokk ci ñi koy jiite dinaa bokk ci lépp mais su ma deewee dem safara waaye tey jii su ma ànd ak imaam Ousseyn daf may wóor ne fii laay deewee donc sama àddina fii lay jeexee waaye su ma demee àllaaxira yàlla dina ma tere dina ma dugal àjjana ba si yàgg mu ne ko man tànn naa tànn naa dee tey pour dem àjjana ëllëg défendre waa famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ku nekk si ñun loolu la war a def fii mu toll nii fii mu toog xool fan la toll ci bëgg yonent bi ak waa këram ci soutenir imaam Ousseyn te bëgg yonent bi ak waa këram mooy nga topp leen topp seen njàngale te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bëgg ma topp ma ci lenn dong lañ koy xàmmee mooy ci ay jikko yu baax ndax julli ak woor ak sàkk asaka ak lépp lu mu doon ci jaamu yàlla ay ay ay moyen la ay jumtukaay rek la pour lan pour egg ci li nga xamante ne mooy nekk julli dëgg te julli dëgg ñu ngi koy xàmmee ci ay jikkoom te jikkoy jullit mooy nga bëggal bopp li nga bëggal sa morom jikkoy jullit mooy ngay taxawal li nga xamante ne moom mooy jariñ doomu aadama yi jikkoy jullit mooy doo lor kenn ci sa làmmiñ doo lor kenn ci sa loxo jikkoy jullit mooy lépp lu doomu aadama yi am nga bàyyi koog ñoom loo am nga daat koy seddak ñoom jikkoy jullit mooy doo wax doo dugg si la sa yoon nekkut doo fen doo njaaloo doo yàqate doo détourné xaalis doo sàcc doo lekk loo moomul doo lekk lu lewul jikkoy jullit moom nga xam lan mooy dagan nga nekk ci xam luy araam nga bàyyi ko te foo toll rek ngay xalaat ndax lii ma nekk nii lu yàlla gërëm la loolu mooy jikkoy jullit loolu la al-Hurr ibnu Yazid ar-Riyahi daal di tànn te nee soo koy tànn tam da koy tànn en toute liberté parce que al mu ngi tekki l'homme libre moo tax al-Hurr ibnu Yazid ar-Riyahi jour bi mu demee ba jàmbarleeg noon yi ba ñu daaneel ko dóor ko jaasi si bopp ba mu ne la béyka yaa Xuseyn bi ko Useynu tiimee fekk ñàll bopp bi dañ na mu daal di jël musuwaar boo xam ne yaayam Fatima Zahra salawatullahi wasalaamu alayha moo ko defaroon daal ci takk boppu alxur bi ne ko alxur ci loo ne mu ne ko de imaam leen dong laa lay laaj est-ce que baal nga ma est-ce que def naa sama mission imaam ne ko wallahi alxur def nga sa mission mat na sëkk te sa yaay juumul woon bi mu lay tuddee alxur ndax alxur mooy ku mooy gor anta xorrun fi dunia yow gor nga ci àddina wa saidun fil axira te di nga gore ci safara di nga dugg àjjana anta xorrun fi dunia wa anta fil axira yow mi ku gore ci àddina ku gore ci safara la loolu tamit mbokku jullit yi exemple pour ñun ñi ñëpp ku nekk nga xool jël exemple ci alxur est-ce que yow la war ci lislaam yaa ngi koy def ñun ku ci saraxa ñaari yoon julli ñaari yoon woor ñaari yoon jàpp nga def nga lépp waaye gis nga kii joxe na lépp ba joxe bakkanam joxe sacrifier famille am sacrifier lépp waaye ba léegi mu ngi laaj ndax moom def na devoir am loolu moom mooy tax nit ki di avancer nit ki lu mu def ci lu baax daf koo war a xeeb lu mu def ci lu bon nag daf ko war a rëyal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn jour ànd ak saaba yi ba ci biir désert bi manding bi mu ne leen dem leen dem leen taxani dem leen uti mat ñenn ñi ne ko ah yaa rasulallah naka la ñu mën a utee mat ci désert bi nga xam ne garab amu fu mu ne dem leen rek lu waay for na indi même su dee benn dëkk na nga ko indi dëkk mooy épine ñu daal di for ba ñëwee ci timis ba ñu daal di gis mu nekk sayu matt bu mag un tas bu rëy rëy rëy bu mu nekk matt ñëpp waaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne est ce que xam ngeen lii li mu tekki ñu ne ko ah xanaa nga wax ñu ko mu ne lii de mooy tekki bàkkaar yu sew yi nit ñi di di négligé di bon di def bàkkaar ba pare ne ah lii de nee na yooyu suñ la ko dajalee yow ma xiyaam day toll say say bu toll nii lay doon taabu mel nii ci batt lay doon te mën na laa lakk moo tax bàkkaar dañ koy bàyyi amul bu mag amul bu ndaw bàkkaar dañ koy bàyyi dañ koy réyal lu baax tam lu ci nit def def daf koy tuutil ndax sooy réyal lu baax li ngay def da ngay arrêté te olof yi nee nañu ku daagu ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la kon loolu mooy grande leçon yoo xam ne wër nañ koo jël ci alxur ibnu yazid arriyaay ba ñu demee ñoom ñaar ñuy ànd ñaari sol ñaari ñaari armée yi di ànd alhurda di escorté armée imam Hussein ñuy dem ba dugg biir Irak ñu daal di romb benn dex imam Hussein daal di xool foofu daal di ne taxaw leen daal di laaj nit ñi ne leen fii nan la tudd ba ñu eggee ba ñu eggee Irak ba imam Hussein gis benn dex dex bi alxummaa la tudd waaye dex boobu dex bu ndaw la boo xamante ne dafa jël ndox ci dex bu mag bu ñu tuddee Furaat mooy le fleuve Efrate mu ne leen bërëb bi nan la tudd ndax buñ ko defee rek photo bi ñëw na ci biir xelam fi ko maamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fii lañ lay faate te jibril wan ko ko mu gis ko ba xam lieu bi mu ne leen fii nan la tudd ñu ne ko fi de nay na waa la tudd mu ne leen amul beneen tur ñu ne ko axankay ak taf mu ne est-ce que amul beneen tur ñu ne ko axankay karbala mu daal di yëkkati loxoom ci kaw asamaan ne allahumma inni a'uuzu bika minal karbi wal bala yàlla de maa ngi ñëw ci yow di musal di muslu ci yow ci karb karb moom mooy malheur karb moom mooy musiba ak balaa maa ngi parce que ba pare mu ne wàcc leen seeni fas fii la ma sama maam rasulullah waxoon ne fii la ñuy reye dagg sunu bopp yi daal di jël fas yi yéegal ko ci sunu kaw fii la ma sama maam fii la ma sama maam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fii la ñuy reyee kon wàcc leen seen fas ñu daal di dal fii daal fi def suñu campement ci bi mu waxee loolu nit ñi daal di wàcc ñu fàttaliku bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi jibril ñëwee ci moom di ko jox xibaar boobu ne ko sa doom ji de Ousseynou soo génnee àddina say saaba ak seeni doom dinañ ko rey dinañ ko tooñ ba pare rey ko dagg bopp bi jël bis boobu def ko bisu feet waaye de képp ku ànd ak ñoom soo ñëwee yàlla dina la mbugal mbugal boo xamante ne mosuñu koo mbugal kenn waaye képp ko ànd ak ñoom soo ñëwee di nga fekk bokk ci yow ma xiyaam ñi nga xamante ne dañ dugg àjjana te kenn du leen àtte yonent bi daal di jooy ba pare woo saaba yi netti leen histoire bi ba pare leen bis boobu képp ku ko fekkee na nga ñëw jàppale sama doom imaam Hussein addis boobu mu ngi ci téere yëpp bi imaam Hussein wàccee fasam wàcce ak njabootam ak ñamu àndaloon ci la def discours bii may waaj a wax ci la imaam Ousseyn dajale njabootam ndax bu muy jógee Médine soo déggee ci ziyaara ñu assalaamu ala al Xuseyn yàlla yàlla yàlla na sa jàmm nekk ci Ousseyn wa ala ali ibnul Ousseyn ak ali ibnu Ousseyn wa ak doomi Ousseyn wa ala ashaabil Ousseyn ak saaba Ousseyn ñetti catégorie googu ñoo àndoon ak imaam Ousseyn mooy ñeen ñi ñoo nekkoon njabootam ñi mu àndaloon jóge Medine ànd ak ñoom ak yenn saabaam yi nga xamante ne dafa jóge Medine ànd ñoom ak ñi nga xam ne ci yoon bi lañ ko dabe woon bu muy jóge Medine mu ngi ànd ak dix-huit fukk fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne waa kër yonent bi la waa famille ne ci ay góor daa di ànd ak cinquante quatre juróom fukk ak ñeent ñoo xamante ne ay saabam la ñuy soixante douze daal di ànd ak ci yoon wi ba mu demee ba def ay discours am ca Màkka surtout ñett ñeent junni nit quatre mille personnes nee nañ ko labbayka yaa Hussein yaa wax dëgg yow la ñuy àndal ba mu eggee na Karbala mooy bis ki tey di di ñaareelu fan ci weeru tamxarit ci la taxaw def discours bi ne képp koo xamante ne àddina moo la taxoon a jóg bu yeboo nga ko wane ginnaaw képp koo xamante ne yàlla moo la taxoon a jóg bu yeboo nga des ndax de fii képp ku fi des rek sa bakkan fii lay des ndax sama maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ma wax te mission boobu laa am moom la ma sama borom subhanahu wa taala def te moom laa fas yéene matal ba sëg léegi nag ba mu defee discours boobu ba pare quatre mille personnes yi ko toppoon jóge màkk ñëpp dañoo dellu ginnaaw dañoo dañoo retourné daat ko fay bàyyi mu des ak soixante douze personnes yu mu jóge woon soixante douze personnes yooyu ñoo fa mujj toog ànd ak moom ba ñoom ñoo mujj daanu ca Karbala ca yowmul ashura salawaat ala muhammad wa ala muhammad kon nag mbokk yi incha allah ci bis yi di ñëw ne ñëw continuer histoire bi ba keroog ñu egg ci fukkeelu fan bi ñu xam ne assalaamu ala xuseyn boobu ñuy def di julli ci imaam Ousseyn di ko di di ko di ko ziyaara wala ali ibnu Ousseyn ali ibnu Ousseyn boobu mooy ali akbar bokkoon na ci doomu Ousseyn yu ko àndaloon ali akbar mu ngi amoon ñu ne trente trente la amoon nekkoon doomu imaam Ousseyn yaayam di ummu layla wa ala wa ala ali ibnu Ousseyn wala awlaadi Ousseyn doomu Ousseynou yëf àndoon ak moom bokkoon na ci Ali Akbar bokkoon na ci Ali Zeynil Abidin turandoo Zeynul Abidin moom mujjul xeex Karbala ndax dafa feebaroon waaye lépp li xew après yàlla ak moom moo tax Karbala dund moom moo ñu jàngaloon kullu yawmin ashura wa kullu ardin Karbala labbayka yaa Ousseynou moo ñu jàngal lii lépp ñu xam ci ashura moo ñu ko nettali mooy jàngatam ban taxawaay lañ ci war a taxaw nañu bis yëpp Ashura la ak àddina bi yëpp Karbala la di ñu wanee ne Karbala ndekete yoo Karbala ak Ashura leneen dong la woon xeex entre dëgg ak fen te xeex boobu foo toll rek yaa nga ca ku nekk yaa xam ban parti ngay jël ndax Ashura la fa xewoon xew ca Karbala moom mooy dëgg la imaam Hussein représenté woon mu xeex ak fen bi Yazid représenté woon wala awlaadi usentan ali asxar moom mooy abdallah arradi doomu imam usen boo nga xam ne ci bisu karbala moom la ñu fitt daal di dagg put ba fekk mu ngi ko nii di ko ñaanal pour ñu naan pour pour pour mu ndox bu mu naan ndax maroon na mar gu tar wala awlaadil waaye tamit ci biir doomu useyn yi nga xamante ne duñu doomu directam moo tax ca ziyaara bi ñuy waaj a def asalaamaaleyka ya rasul anzanallahu lakal aza fi wala dikal huseyn ansanallah dégg ngeen balaata ñu koy def ñu ngi ñu ngi wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo daanu balaa min wuladil Jaafar wal Aqil ñu ne gis nga ala shuhadaa'i min wuladil Usayn ak ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaale ñi daanu bokk ci doomu Usayn ak aussi ñi nga xam ne ci doomu assan la doomu Asan yekk ci gën a ngi ci siiw mooy Xaasim Xaasim yi nga xamante ne 16 ans la amoon moo ma fa représenté woon papaam imam Hassan alayhi salaam ñoom ñëpp nañ dellu seen histoire ak wala alaw ak doomu Jaafar Jaafar Tayaar Jaafar Tayaar mooy mag mooy magu imam Ali alayhi salaam Ali ñett la woon la yaayam amoon mooy Jaafar ak Aqil ak imam Ali moo nekkoon caat bi donc ñu ne tamit yàlla ñu ngi jaale yonent bi waaye ñu ngi tamit siyaare ñi daanu ca Karbala bokkoon ci doomu Jaafar ndax Jaafar Tayyaar dafa amoon doom bu tudd Abdallah ibnu Jaafar Abdallah ibnu Jaafar moom lañ mayoon Zeynab batalatu Karbala l'héroïne de Karbala Zeynab mi nekkoon doomu Fatima nekk rakku imaam Ousseyn Abdallah ibnu Jaafar lañ ko mayoon Abdallah ibnu Jaafar ba imaam Ousseyn di jóge Médine di jóg di ñëw Karbala da ko ne yow toogal Médine mission bi ma la jox moom ma nga surveiller armée omeyyade bi ak ñëpp lépp loo gis rek nga yónnee ma message pour ma xam naka laay taxaw pour ñoom ñu bañ maa deltu ginnaaw moom moo doon garder les arrières moom ak Muhammad ibnu al Anafiya di rakku imam Hussein alayhi salaam gis nga Abdullah ibnu Jaafar comme que moom mënul woon dem dafa yebal ñaari doomam ñu représenté ko fa ñaari doomam yooyu tam ñu doomu Zeynab di ay jarbaatu Ousseynou mooy Awun ak Muhammad ñoom foofu la ñu dagg foofu la des ca Karbala muy Awun ak Muhammad waaye tamit doomu aqil aqil muslim ibnu aqil ak ay doomam ñoom la imaam Hussein yónni woon ñu jiitu kuufa pour préparer terrain bi muslim moomu moom la waa kuufa yi trahir ba foofu lañ ko reyee laata imaam Hussein di ñëw moom ñu ngi ko rey jour Arafat boobu nga xamante ne ci la imaam quitté Makka di dem kuufa donc ñooñu tamit ay doomam ñoom ñoo daanu ci Karbala doomu ak doomu yonent bi doomu imaam Ali doomu imam Ousseyn doomu Aqil doomu Jaafar ñoom ñoo composé woon ñi nga xamante soo déggee tam ñu ne doomu imam Ali ñu bokkul ak doomu Fatima yi te ci jiitu woon nekk jàmbaaru góor ga mooy Abbas Abul Fadlil Abbas moom mi nga xam ne moo uti woon ndox ñu dagg ñaari loxo yi mu daal di daat koy daaneel foofu ca Karbala kon nag ci suur yi di ñëw loolu lépp nañ ko nañ ko leeral di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla taas ci barke imam Hussein alayhi salaam boole ñu ci ñi nga xamante ne ñu ñooy jooy imam Hussein alayhi salaam ndax ne nañ bët bu jooy imam Hussein ronk bu ci tuuru doo bët boobu du xonq Karbala képp ku naroon dem safara sax soo jooyee benn toq ci li dal imam Hussein toq boobu dina far euh, musiba dina far sa dem boobu nga naroon dem jahannama yàlla nañ ci yàlla boole ci barke muhammadin wa alihi tayyibin at tahirin salawatullah wa sallam fi ñuy jeexalee mooy message Maulana Chérif Mouhamed Ali Aydara sang bi doomu Ousseynou doomu Assane di guide de la communauté chiite Mouzayir yàlla nañ yàlla taas ci barkeem ko baale bàyyi ko sunu kanam ñu ngi koy jaale Imam Hussein di ko jaale tamit magam jii fi génn àddina barki démb di Chérif Mouhamed Habib moom mi nga xamante ne bi liggéey bi tàmbalee ba léegi mu ngi nekk ci wetu imam mu ngi nekk ci wetu shérif Mouhamed ay dara di ko défendre comme ni Amza doon défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax bis bu ne su asura jotee wala ñuy def conférence su jëlee parole ne su gëmee ne de école yi nekk ci islam yëpp baax na bi ci gën mooy école lu ahlul bayt daan ñu wax naan góoru leen avancé leen daf leen ndànk rek yéen a nekk ci dëgg te gis ngeen même ba man demee Vélingara en deux mille deux mille huit xaw ma tama deux mille xaw ma fa shérif yónnee ba ilimaan yi soixante douze ilimaan daal di génne fatwa ne chiites yi duñu ay jullit ñoo yées yahudi yeeg chrétiens yi léegi nag duñu seetaan mukk ñu fi def dara te man dafa yónni woon ñu ne ma ñu ne képp koo xamante ne sax man mii fat nga ma sa biir kër soo amee ngénte ilimaan du ñëw soo amee dëj ilimaan du ñëw soo amee mariage ilimaan du ñëw mu metti lool ñu ñu ñuy attaqué chiites yi de tout côté ci ay wax ak ay menaces boobu shérif alxabib la shérif yónni woon foofu pour mu ñëw defi médiation bañ ma jàppee tamit yóbbu ma dikk moo njëkk a ñëw taxaw def ay mbiram ba pare ñëw sax di laaj gars yi fan la dikk nekk pour jubal foofu directement loolu tamit moom la fépp fu ñu mas a taxaw di def conférence wala mu nekk fu metti mu ngi nekk ci wetu mag rakkam Maulana Chérif Mouhamed Ali Aydara yal na ko yàlla teg ci wetu maamam Ousseyn ci àjjana yi gën a kawe di di leen jaale tamit kilifa diine yi fi génn xalif général des Layènes xalif général Thiénaba ak sunu baay boobu Maodo Ndiaye mële di yal na leen yàlla xare àjjana ci barke Mouhamed wa ali Mouhamed donc Maulana nee na message reram bi mu ngi wax ne nekk na ñëpp rek képp kuy taalibeem rek. na màggal fukki fan yi comme nanga ko daan màggale mais nañ ko na nga toog sa kër ndax mbas mii fi ne nañu moytu rassemblement yi nañ moytu julli en assemblée ci biir jàkka yi comme ni ma waxoon nañ ko ay jàkkaama yëpp mu ngi ci continuer ci loolu waaye tamit nee na bu mu tere ku nekk foo toog na nga màggal ndax foo toog imaam Ousseyn mu ngi lay gis nee na koo xam ne da nga ko daan màggal ca mbooloo dem ba mbooloo amatul nga màggalatoo kon amaana kon soo moytul mbooloo moom moo taxoon rek waaye képp koo xam ne imaam Ousseyn moo moo moo tax amal ne fu mu toll mu ngi lay gis yow tamit nga lu foo toll di ko màggal na mu ware mooy màggal bi mooy lii di fàttali histoire bi di jooy imaam Ousseyn mu ne tamit bu leen fàtte téeméeri xul wallaahu lu mu néew néew chaque jour pour jaale ko imaam Ousseyn alayhi salaam nee na tamit mardi bii di ñëw le 17 day organiser don de sang maanaam maye deret comme ni mu ko doon waxee ne imaam Ousseyn dafa joxe deretam pour sauver l'islam ñun tamit nañ joxe suñu deret pour sauver doomu aadama yi ndax jamono jii ñu toll sax surtout deret soxla lañ ko bu baax képp koo xam ne mën nga ko dégg le mardi 17 à partir de 9h na nga ñëw ci centre ba fële mbaaw zag mbaaw foofu lañ koy defee à partir de 9 ku nee na waaye ku ñëw rek soo mayee ba pare demal bu fa toog ndax rassemblement dañ koy tere. nee na tamit la mu waxoon rek mu ngi koy wax li docteur yi wax nañ ci jàpp moytu rassemblement di sol masque di raxasu. waaye surtout nee na képp koo xamante taalibeem nga digal na la nga dem ñàkku ji ndax moom ñàkku na ca bis yu njëkk yéen ñàkk yi egsi fii ci Sénégal nee na kon nag mu ngi digal taalibeem na ñu ñàkku te yàlla nañu yàlla tas ci barke Imam Hussein yàlla dàqal ñu mbas mi ci barke Imam Hussein yàlla indil ñu jàmm ci barke Imam Hussein ñu wér ñu feebar ñëpp yàlla leen yàlla wéral ñi ko amagul yàlla buñ ko am ñi ci faatam yàlla leen yàlla xare ajana bi barakati salawaat ala muhammad wa ali muhammad